billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wasallama wa baraka ala almabaati rahmatan lilalamin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi wa xeyra xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab nuyoo ak ziyaar ba gën a tedd ba gën a sell di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mën koo liggéey nu ma ko bëggee te nu ànd ko ak mboom ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim bi ak mboolem jullit yi ak mboolem doomi aadama yi di am mbégte mu rëy ci jataay bu am solo bi nga xam ne Lamp Fall télévision ñu ngi koy taxawal ñuy jiital ay nuyoo moom itam ak kàddu cant ak ngërëm di ko jëmee ci jëwriñ jëwriñi barabu liggéeyukaay bu am solo bii muy Serigne Aliou Thioune di ko ñaanal moom itam sunu boroom gën koo sàmm gën koo dëgëral gën a barkeel kër gi ba fépp foo xam ne rek yeneen na ko faa yeggale mu yeggale ko fa ci barkeb Serigne Touba di rafetlu lool doxin wi di sant mboolem di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci karbo gi sëriñ Serigne Ibrahima Guèye ak Serigne Abdou Qadir Samb mi nga xam ne mooy taxawee jataay bii. sëriñ Fallou mi nga xam ne moo ko jël si ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gu am solo googu di jumtukaayu sëriñ bi. di am mbégte itam ci jataay bii nga xam ne taxawal nañ ko tey ngir rek di ci waxtaane liggéey bu am solo bii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkati di ko liggéeyal sëriñ bi mu doon liggéeyub lislaam di liggéeyub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi moom xam nañ ne royteefam mooy sallallahu alayhi wa ab soppeem mooy sallallahu alayhi wa sallam léppam da ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko nag ba donn ko loolu moo tax bu ñu waxee ne daare cheikhul xadim lañuy ñuy waxtaane mooy daare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy waxtaane na ko doon tagg sëriñ bi ne ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bi xarfan bi xarfin dara mu wuti wut ak njàngaleem sallallahu alayhi kon bu nee daare sëriñ Tuubaa mooy daare lislaam mooy daare jullit yëpp waaye mooy daare bindeef yi ndax sëriñ bi ci ñaanam gis nañ day ñaanal jullit waaye day ñaanal bindéef fi irham jamii al wara irham jamii al wara gis nañ ko fa bari ci ay ci ay mbindam mu doon daara joo xam ne nag daara sëriñ bi la niñ ko waxee ndax gis nañ fu bind wax ne sunu borom defal na ma jàngukaay boo xam ne bépp bu xam bépp xam-xam bu am njariñ des ko fay jànge képp koo xam ne itam dangaa ngaa bëgg a jàng mën nga faa jàng si boo noppee yaatal ku ci àdduna bi ndax yaatal loolu mooy yaatal liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yaatal lislaam wax ne itam wax nañ ne itam ci jamono yooyu waajaloon na ko ba dox jëndu ji woon na ay téere fu soree sori ñu indi ko ngir mu wax ne sama jàngukaay yi laa bëgg ñu di ko fa jànge bil mustafa liibana al quddus madrasatan biha yazulu al ada wal jahlu wal kabadu liggéey boobu it mboolem ñi ko fi ma sa nekkal tàmbale ca cheikh moustapha al karim ku ci nekk rek fat jamono tolloon tollale nga fa liggéey boobu bi ba mu yegsi nag ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi njabootu sëriñ bi nga xam ne jotuñu woon a tooge ay toogaayam it ñëpp ci loolu lañ nekkoon waaye ñi nga xam ne ñooy mag ñi àndoon ak moom ñu baax ñu tedd ñu seetlu ñoo ñii ñooñu itam ñoom ñëpp ci loolu lañ nekkoon mën nañu te tudd borom saa magi mag waaye Cheikh Ibrahima Fati maam Cheikh wàcc nag sëñ Afiya ak mboolem rek ñi nga xam ne ñooy bokk sëriñ bi sëñ Cheikh Thioro sëñ Balla damay bañ a lim ndax boo limee doo matal waaye Cheikh si ku mel ne sëriñ Cheikh Mba sëriñ Mbacke Bousso moom itam moo màgg moom yi ak waa kër mboolem bokk yi rek damay bañ a lim waaye bu ma tuddee kenn rek mel na ne tudd naa ñëpp kon ñëpp rek sëñ Daam Abdourahman waaw nga xam ne moom mooy daara ju njëkk ji sax ma ne sa ko wax moom itam kon ñoom ñëpp rek ci loolu lañu la nekkoon ba yàlla dogal nag Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëw wax ne kat li nga xam ne moom laa fekkoon sama waajur ya ak sama kilifa yi nekkoon fi foofa rek laay teg sama tànk ndax mbirum sëriñ bi amul tànki gannaaw waaye nag yi nga xam ne ñeme nañoo wax ne ay naali sëriñ bi la woon bu ci nekk rek mën nañoo wax ne liggéeyub lislaam du yegg waaye bu ci ne dox nañ ci jéego yoo xam ne fa jamono toll mën nañ ne jiitu na jamono tàmbalee ci jumaay sëriñ bii jumaa ju mag ji waaye tàmbalee ca dem Màkka nga xam loolu man Sëriñ Mbàkke Buso bind na mbind xam ne wax na ne ñetti mbébét manees naa wax ne mbébéti sëriñ bi la woon te lu ci nekk daa am firnde mbind ak firnde jëf bi ci jiitu mooy aji màkka siyaari ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ fu bari fu mu ko sëriñ bi bind gis waajta yëg itam waajtaay boo xam ne sëriñ bi doon na ko waaj ngir siyaare ji soppeem boobee sallallahu alayhi wa sallam waaye joxe faratay xaj waaye gis nañ ña ko wóotu wóotu nañ ko ci bàggale mébét yooyee ci anam ga gën a rafet muy Cheikh Ahmadul Fadil maam Cheikh Anta sëriñ borom gaawaan ak njab mbooloo bañ àndaloon ak gannaaw bi mbooloo mi nga xam ne yóbbu nañ leen te ñu kuñ ci yóbbu rek dañ ci am yéene yeggale ji bëgg-bëggub sëriñ boobu yi radiyallahu anhu waaye jumaay Tuubaa nga xam ne gis nañ ne sëriñ bi moom dafa bindoon moo ko digle woon waaye dafa bind di ñaanal ñi nga xam ne ñoo koy tabax di ñaanal ñi leen di dimbali di ñaanal ñi nga xam ne ñoo leen digal ñu tabax ko waxfir liman banaw bi na arafia waxfir liman amarahu bihi wa li jamii man aanahum ala binaiha allazi bi fadlika atala bañ agsi ci daare ji muy ñetteelu mbébét bi ñu gis sëriñ bi ci boppam bind wax ne bil Moustapha lii banal lii banal qudduusu madrasatan biha yazulul ada wal jahal wal kabadu sunu borom defal na ma jàngukaay boobu bii nga xam ne bépp xam-xam bu am jariñ ak képp ku bëgg a jàng dangay mën a ñëw jàng si fa. loolu yi nag moo tax chaar bi liggéey bi ñu def sax ni ñu ko tuddee mooy al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabul mardi loolu itam ñu gis ko ci mbind sëriñ bi muy doon loo xam ne baamu na ko ci ay yoon bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yëkkatee liggéey bii nag ànd koog mboolem bokki taalibe yi njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye eh, rawda riyaaxin nag am tawfiqi sëriñ bi jiital leen ci liggéey boobu bi waaye ñu kook koog mboolem bindeef yi mboolem njabootu sëriñ Tuubaa bi ñuy waajal liggéey bi ñu xam ne kon sëriñ bi li muy def lu manhaj la wala système wala modèle modèle éducatif lay doon bu Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi lenn ci lu war a jàng lu am njëriñ ndax sëriñ bi moo ko waxoon ne ci kii tam Cheikh Muntaqa kii dal baasin ba ca njobaxtan la dafa bëgg mu doon daara joo xam dañ cee mën a jànge loolu moo tax nag ci waajtaay wi ñu def ko ay pàcc yu baree baree bari ay xaaj yu wuute yu fasanti ko tàmbali ci daara alquran alquranul karim moom mooy lépp sëriñ bi alquranul karim mooy ndam bi ndambul xam-xam mboolem xam yi am njëriñ yëpp mi ngi ci biir alxuraan yoo xam ne day jëriñ nit ñi ñu defaru àdduna defaru alaaxira loolu moo tax moom lañ ci jiital mu doon daara joo xam ne dañ koo def ay dañ ko nos nga xam ne gone gi bi muy dal baasiin ba bi muy beqi bind kaamil lépp lu mu fi war a def tënk nañ ko njàngin wi sax dañ koy def lu mel ne mën na seen ko tudd ay darsu nga xam ne buy dal baasin ñaat xarf lañ koy njëkk a saa muy yokk di yokk di yokk ba bu fi defee ñetti at wala ñetti at yu teg ay weer yu néew dana mokk dana wàcc wàccuk mokkal mën nañu wax ne mën naa wax ne wax mokkal na alquran bu boobaa nag dañ ciy tegaat ñaari at yoo xam ne dafay beqi bind kaamil waaye ci biir ñaari at yooyu itam nag ci lay jàng mboolem xam-xam yi téere yu téere yu njëkk yi nga xam ne mooy téere sëriñ bi ak téere yi ñu daan jàng fii ci dëkk bi ci ñetti at yooyu la koy jàng te bu koy jàng da koy mokkal ni muy mokkale alquran ndax xam ngeen ne daari alquran yi jiitu waaye majalis bee ci topp nga xam ne kon bu mokk bu wàccee wàccu mokkal rek day daal di tàmbali di xëy ca majlis ba bu fa xëyee ba waxtu mu fa war a jóge bu ñëwee bind li nga xam ne moom la war a bind muy robaw ci beqeem ba noppee tari fukki isib wala fukki isib wala juróom-ñaari isib nga xam ne moom lay tari ci bis bi bu ko defee nag soog a soog a soog a dallu xam ne loolu du sonn te dana dana def li mu war a def waaye la muy jël ca majlis ba nag muy njaagum xam-xam muy téere sëriñ bi da koy mokkal na muy mokkale alxuraan nga xam ne kooku moom bu jóge woon ca daara ja rek bu fekkee daa defee leneen nit yóbbaale na alxuraan waaye yóbbaale na xam-xamu diine boo xam ne taxali kook moom ba ba soob sunu borom ndax daf koy mokkal li muy mokkal alxuraanul karim te beqi googu nag ak bind kaamil mooy saxal mokkal gi ndax jàng alxuraan jafe na mokkal ko jafe na waaye teye koo gën a jafe loolu moo tax nag ñu jàpp ne loolu bu ko defaatee dana mokkal mokkal goo xam ne moom bu ko sama borom dogalee dootu dootu fëtt loolu kon mooy xaaj bu njëkk mooy daare alxuraan ji bi ci topp itam mooy majlis bi wala mahadara bi mooy majalis lañ koy wax noonu fii mooy njàngum xam-xamu diine xam-xamu sharia ak lépp lu aju ci diine moo xam ne moom moom moo fi moo moo moom lañ fi doon def naka jekk waaye nañu wax ne moom sàmmal lislaam ba mu yegg si fii mboolem borom xam yi njàng moomu lañ jàng boobu itam dañ koy def ni ñu daan jàng ci njàng yi ci daara yu mag yi nga xam ne ñooy daara yi nekk ci yoonu murit mën nañoo wax daara yi Gede mën nañoo wax daara yi euh, daara yi euh, jumaa ji mën nañoo wax daara yi kër sëñ Chouaïbou sëñ Habibullah mën ñuy wax daara yi longoor mën ñuy wax daara mboolem rek dama mën a lim kenn xamul daara yi nu mu toll waaye mboolem daara yooyu njàng mu njëkk ma nga xam ne moo la fi jàng daara Kër Mamor jaara xam na ne foofu daara xam daaru moxti ku ne xam ne Cheikh Ibra Fati moo jàngal mag ñi yooyu nag daara yooyu lañ bëgg a njàng mu njëkk moom yi nga xam ne moom lañ fi doon jànge bu ko defee nag ñu ne ko nag ak fi jëm fi jamono toll li ma ko waxee lañ doon jàng bu njëkk la jàng waaye dañ koy tollal ak jamono xam-xam yi nga xam ne jamono indi na ko léegi te nit ñi soxla ko ñu yokk ko ci waaye njàngin wi nga xam ne jamono da ko soxla léegi itam wala dafa dafa tolloog jamono ñu di ko jàng mooy gone gi buy jàng ci majlis bi it dañ koy def loo ay tamarin ay exercice bu ko defee itam am na diir boo xam ne boo ko fi defee dañ koy defal eh, li ñuy wax eh, ixtibaar bu demee ba nga xam ne dafa war a def dañ ko war a defal examen ñu def ko bu noppee ñu jox ko diplôme boo xam ne diplôme yooyu état da koy reconnaître nga xam ne ëllëg dana ci mën a liggéey waaye majlis boobu nag mën na koo topp ba am niveau licence loolu itam bi ñu tëral programme bi xool nañ fi ci àdduna toll ci yeneen réew yi nga xam ne ñooñu ko njëkk def ne Maroc am nañ lu ñu tuddee ataalimul atiq am nañ am nañ lu ñu tuddee ataalimul asil am na yeneen réew itam yu bari yoo xam ne am nañ njàng mu dem noonu muy njàngum cosaan moo xam ne ki mu génne moom mënees na ko tuddee aalim rabbaani ndax moom day xam diine ci xam-xam ba gën a xóot xam-xam nga gën a yaatu noonu lay jànge diine waaye nag jàng xam-xam yi nga xam ne jamono laaj na ko ak jumtukaay yi nga xam ne jamono indi na ko ngir jullit bi man ko war a jëfandikoo ngir mën a war a nekk ci àdduna ni mu ci war a nekkee waaye itam ngir mën a jottali risaala muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu fàtte ne Cheikh Mouhamadou Mountakha kat dafa fàttali wax ne dañ koy def nag li ilaai kalimatillahi al ulia ilaau kalimatillahi al ulia loolu baamu na ko ay yoon mooy cosaan mooy xolub daara ji lépp moo tax buñ noppee ci loolu kon alxuraan ji wax naa ko wax naa majalis bi ci tënk rek gannaaw majalis boobu itam am na lu ñu tuddee kulliya dirasatil islamiyya wa luxal arabiyya nga xam ne moom mooy njàng mu kawe ma ñi am bac ñoom ñoo fay jànge foofa itam sëriñ bi bi muy woote woote mu tedd bi jox nañu misaal ci ay université yu mag ci àddina bi wax ne dama bëgg bu buñ fi toogee feek ñetti téeméer at ngeen dab ñooña université yooyu nag lañ fay jànge ñun dañ ko bëgg di jàng fii lañ fay jànge dañ ko bëgg di jàngale fii sunu ndaw ñi waaye dañ ca yokk leneen nag dañ ca yokk loo xam ne sunu yëfi bopp la sunu yëfi bopp la waaye ni Serigne Touba jàngale noonu lañ fi jàngale ni nga xam ne itam moom lañu Serigne bi tënk ne nañ ko jànge diine mooy al aqida al ashariya wal fiqhu al maliki wa tasawuf al junaydi loolu mooy li nga xam ne ci lañuy ñu tënku nga xam ne moom moom itam mooy kulliye boobu waaye nag ñu indi ca loo xam ne nag mooy njàngalem Serigne Touba ak tasawuf ni ko Serigne bi jàngalee ak sunu bokki sëriñ bi mag ñi nekkoon ci Sénégal gii nga xam ne ñoo ñu indil sàmmal lislaam ñoom itam ku ci def ca kem kàttanam bay ca waaram ñoom ñooñu itam seenum njàngale des na ko fi jàngale ngir ku fi dugg xam lislaam ni ko sunu mag ñi indee woon rawatina Serigne tubaa waaye nag bokkam yi tax ni ma ko waxee sallallahu alayhi wa ñëpp ko bokk waaye Serigne Touba ñëpp ko bokk ndax moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di fi jàngale waale sax taarixu Sénégal sunu démb sunu aada yu baax ya sunu cosaan yu baax yi sunu jikko yu baax yi nga xam ne amoon nañ ko te léegi awlama bi wala mondialisation bi mel na dañu ko fàtteloo bañ bëgg a yem ak ñëpp te noonu dañuy wax ne ba sunu borom di séddale mbaax daf noo beral loxo naka njëkk daf noo beraloon loxo kon nag loolu ndaw ñi war nañ koo xam ngir mën koo sàmm ngir mën koo inculquer génération yi nga xam ne ñooy dikkaat ëllëg ngir mu bañ a réer waaye buñ toppee riirum jamono rek ak yëngatu bi ak ak li xew loola bu yàggee dañ yem ak ñëpp te loola baaxul kon day mel ni cër bi nu borom bi subhaanahu wa joxoon sàmm nu ko te dañ ko war a xam ngir mën koo sàmm ngir mën koo joxaat ñeneen ñoo ne joxaat ko ñeneen ba yëf yi di wéy loolu kon mooy kulliya dirasatil islamiyya bi mboolem njàng moo xam ne mu baax la mu ñu jàng ci université yi gën a mag yooyu sëriñ bi tuddoon dañ ko fiy jàng waaye nag dañ koy dëppale nag ak sunu aada ak sunu cosaan mu doon sunu njàngum bopp moo xam ne wala manhaj système boo xam ne ñoo ko tëggal sunu bopp mu yóbbaale sunu aada yóbbaale sunu cosaan yu baaxee waaye ànd ak jamono nag waaye jàngale diine ni nga xam ne noonu la ko Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu jàngalee dana am itam yeneen i yeneen i UFR wala yeneen i njàng bokk na ca luy jàngale wàllu médecine institut supérieur des sciences et métiers de la santé nga xam ne moom tam day dem ba ca UFR santé waaye dañoo bëgg tàmbalee ci suuf xool li nga xam ne moom la dëkk bi gën a soxla xool li région bi gën a soxla xool li Sénégal gën a soxla muy màgg nag ba àgg ba muy mën a àgg ci UFR boo xam ne médecine lay jàngale en général. loolu itam ñu ngi tàmbalee ci euh, science infirmière ak obstétricale buñ doxee tuuti danañ ci dugal wàllu ophtalmologie danañ ci dugal. Euh, odontologie yooyu yëpp danañ ko dugal mooy dañoo xool rek li nga xam ne moom la dëkk bi gën a soxla gën ko manqué ñu di ko defar muy former ay technicien supérieur nga xam ne lis niveau licence dañuy génne wala ay bu ko defee nag man a wéyal seen seen jàng am na itam nag yeneen UFR yu bëree bëree bari waaye ñeent yi daal mooy njëkk tàmbali ba ko yàlla dogalee mooy daare alxuraan ji majalis bi kulliyat dirasati al islamiyya wal lughal arabiyya walla ak itam al euh, euh, institut supérieur ak Euh, institut supérieur de sciences et métiers de la santé kon ñoent yooyu la ñu bëgg a tàmbalee moo waraloon woote bi gis ngeen sëriñ bi jox na ci ndigal nit ñi itam ñi ngi tàmbalee bindu ubbi nañ plateforme ci internet bi boo xam ne euh, euh, plateforme d'admission lañ ko tuddee nga xam ne ku ca dugg dañ ko defar ba mu jàppandi lool ku ca dugg mën ngaa bindu bu ko defee ñooñu ñoom bu ñu noppee nag def liñ ci war a def ñu mën a tàmbali njàng mi. am na yeneen institut yu nekk ci biir bu am solo xam ne dafay jàngale tasawuf ak almuridiya nga xam ne moom njàngaleem Serigne Touba lañ ko jagleel moom dafay jàngale ak murid ci ni ko Serigne bi woon waaye mboolem mbind yi nga xam ne bind nañ ko ci Serigne bi ñu fexe ba mu am fa waaye itam ku bëgg gëstu ci Serigne bi loo ci bëgg xam man faa ñëw ci anam goo xam ne gu gu gu na ko Serigne bi bindee la kii lay doon Rawdu Rayaahiin gi rek ñu di leen sant ñoom itam gis nañ ne li ñu bind ci ay téere rek macha allah boole kook nag mboolem yoonu murit ak ñi nga xam ne sax xëy na dañoo nekk feneen lañ nekk bokkuñ ci yoon bi sax waaye def si ay thèse doctorat wala ay mémoire ci sëriñ bi yooyu yëpp dañ ko fa bëgg indi waaye di jàngal nag mag ñi àndoon ak sëriñ bi naka lañu àndee woon ak moom sëriñ bi ñim yar naka lañ doon yaraate ñoom ci seen bopp ba loolee itam ni ñu ko waxee ñu mën ko sàmm mën ko xamal ndaw ñi waaye man koo gën a gën a gën a gën a gën a lawal ci dëkk bi mën ko gën a lawal ci àdduna bi boobu tam institut bu ama ama am solo la am na ci boo xam ne itam wàllu làng la institut de langues et des métiers du livre ndax gis nañ ne li sëriñ bi bind kenn mënu koo peeg nun yàlla taw fii xale ñu ciy gëstu ba fii mu ne mënulu ko peeg te loola nag des ko war gën a sàmm gën koo gën koo gën koo gën koo gën koo yaatal gën koo ñoŋal moo tax am na institut boo xam day jàngale naka la ñuy defaree ay téere naka la ñuy sa sàmmee téere naka la ñuy dajalee ay téere naka lañ koy defaree waaye nag naka la tekkee itam sëriñ bi mbind mu yaatu muy macha allah li ma ko waxee léegi nga xam ne géej la gu amut ak tefes waaye nag ñu bëgg ko sob toxal ci yeneen i kàllaama ba nga xam ne ñeneen danañ ci mën a jariñu ndax sëriñ bi moo doon sallallahu alayhi wa sallam te sallallahu alayhi wa sallam mooy rasulul bashariya mooy rasulul alamin wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas moo tax njàngalem sëriñ bi fépp foo xam ne njàngalem sallallahu alayhi wa sallam àgg na fa rek dafa war a yegg loolu moo tax ñu bëgg nag di ko toxal ci yeneen làkk yi ngir mu mën a yaatu ba ñëpp mën cee jot boobu tam institut bu am solo la mooy institut des sciences et métiers euh, institut institut des langues et des métiers du du livre boobu tam am na ci waaye am na itam nag benn centre de formation professionale bu am solo boo xam ne ñu ngi koy waajal ci liggéey bi xam naa ne moom itam bu ko yàlla dogalee balaa yàgg dana noppi boobu nag mboolem métier moo xam ne nit ñi dañ ko soxla ci dëkk bi soxla ko ci Sénégal dañ ko fay jàngale ndaw ñi nga xam ne génn nañ ci daari alxuraan yi ni ma ko waxee teel a mokkal alxuraan macha allah jàng xam-xamu diine liñ ci mënta ñàkk lépp ñu xam ko waaye bëgg teel a jàngi métier nag ndax nañoo teel a taxaw waajur ya bëgg nañoo teel taxaw seen bopp waaye loolu bëgg nañ métier moo xam ne métier mi leen yàlla xeer ñu bëgg ko lay doon métier mu dëkk bi soxla réew mi soxla ko waaye nag ñu mën ko jàng ci anam goo xam ne anam gu ñu xereña lay doon ci diir bu gàtt boobu centre itam incha allah mi ngi fi bu mag a mag la mën naa jël mbooloo bu bari waaye centre boobu bokk na ci liggéeyam mooy tàggataat ñi nga xam ne jàng nañ sax seen métier ba mokkal ko wala ba nekk ci di ci liggéey waaye gis nañ ni jamono day dox te ñoom itam bëgg nañoo ànd ak doxinu jamono yooyu ba li nga xam ne àdduna laaj na ko ci métier ma ngir xereñ ga ak defar ba di finition ya gën a raffiné wu gën a mel na war a mel yu demee noonu bokk na ci mën nañoo seet waxtu rek donte ñaari waxtu wala ñetti waxtu ci semaine wala benn waxtu sax ñoo xam nu ñu koy tànnee ñu ñëw fa di yokk seen seen seen xam-xam ñu koy tuddee renforcement de capacité wala capacitation wala ni ñu koy tuddee ci waxinu jamono ji. loolu itam am na fi muy institut bu am solo ni ma ko waxee woon ci kaw nag ay UFR yu baree ngi fi yoo xam ne bokk na ci wàllu mbay ku ne xam na ne fii moom dëkku barab bu mbay la Sénégal it ku ne xam na ne dëkku mbay la te buñ ko gën a xereñee liñ doon li ñuy wax autosuffisance. lu fi yomb la lu war a mën a nekk la noonu sax autonomie la ñuy wax ci wàll yëpp ni ko yeneen réew yi amee ndax foofu ay doomu adama dong nga fa ne ay xel la leen borom bi subhaanahu wa taala jox ñu tàggat ko organiser wu jàng di liggéey <clears throat> ba fañ njeg ñu yegg fa te ëppale wuñ ñu dara kon nag loolu moo tax ñun tam xéewal gi nu yàlla jox muy ay ndaw Sénégal boo seetoon daanaka ñi ci ëpp ay ndaw lañ te macha allah yàlla jox na leen xel jox na leen kàttan jox na leen cawartaange kon nag ñooñu ku leen gàttanu gunge leen tàggat leen fu réew mi bëgg a yegg mën nañ ko faa yegg waaye lépp lu àdduna soxla ci ñu dundal suuf ni ñu ko borom bi subhaanahu wa taala digale mën nañ koo def loolu itam tax na ba ñu fonk loolu bëgg wàllu mbay nag ñu gën koo jàng ndax mooy cosaanu yoon wi nag mooy cosaanu Sénégal waaye rawatina gox bii rawatina yoon wi li ñu daan def lépp dem ak barki démb ci lañ ko doon def loolu nu bëgg cee gën a tàggat ndaw ñi nag ngir ñoom itam ku ci ne lay maamam ma i baayam nekkoon mu mën caa dellu nekk ko nekk ca waaye nag yor ko nag ni jam fi jamono toll ma mën a yokk nag euh, li nga xam ne mooy nag euh, la ci rendement bi ak la nga xam ne mooy la nga xam ne moo cay moo cay moo cay génne coono ba gën a néew waaye njariñ la gën a bari ci wàllu mbay mi naka noonu la amee wàllu euh, génie civil noonu la amee informatique bi nga xam daanaka léegi àddina bépp ci lay doxe am nañ li ñu tudd itam génie mécanique génie mécanique am nañ ko lépp daal loo xam ne lu ñu soxla la rek ci UFR e yooyu am na UFR e am na ci itam beneen boo xam ne dañ koy faral di wax muy boo xam ne wàllu artisana lañ ko tuddee moom itam li ñu bëgg rek mooy mu gën a mën a valoriser eh, yi nga xam ne yàlla defal nañu ko fii ci dëkk bi rawatina lu aju ci wàllu der gis nañ màggalu Touba li nga xam ne des na ko fi lewetal ci ay gàtt kenn xamu nu mu toll waaye loolu buñ ci jëfandikoo ci xewalu kii bi ba noppi yëfi ndaw ko ndaay eh, waaye la ca des itam muy der yaag ya ca topp yëpp des ko mën a eh, defar noo xam ne des na ko jariñoo loolu itam kii bu am solo lay doon boo xam ne bu yàlla dogalee mu mu mu taxaw day tàggat ay ndaw ñoo xam ne buñ génnee duñ dem di rang di wut ku leen wutalum xëy wala ñuy dem di kii ku ci nekk da ngay daal di mën a ubbi si yëfi bopp loo xam ne lañ fay di la nga fay def day indi valeur ajoutée bu bari lool ci matière première bañ la joxoon waaye mu doon chaîne boo xam ne ñii dañuy def lii ñii def lii ñii def lii ba ba mu doon produit fini boo xam ne moom incha allahu taala des na ko mën a jariñoo te dana amal leen amal njariñ ñoom ñi cay liggéey dana amal njariñ dëkk bi dana amal njariñ réew mi noon daal lañ ko toppee ba ci waxoon naa ko sànq UFR euh, santé boo xam ne moom dafay daal di lëkkaloo ak euh, hôpital yi nekk fii ci dëkk bi hôpital Matlabul Fawzayni hôpital Cheikh Ahmadul Khadim bii ñu fi def ak mboolem ndaamaatu gi yooyu dañuy ànd ak ñoom waaye nag lëkkaloog bu Cheikh Ahmadul Khadim bee ngir ñu mën a am CHU boo xam ne moom ku ne xam ne ne mënta ñàkk ci université bu mag boo xam ne bu toll ne suñu bopp bii la noonu daal ci tënk da xam naa dem Serigne Mbacke Abdourahmane ñoom ak Serigne Sam Bousso ak Serigne Falilou Mbacke al ak euh, professeur Moussa Badiane ñoom danañ gën a yaatal waxtaan bi dama doon tënk kon daal loolu ci kii bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy tënku daara ji ni fi nit ñi di duggee itam mooy dañuy jaar ci plateforme bi wax nañ ko plateforme mission bi ah képp koo xam ne soxla nga itam joxe nañ ay numéro téléphone loo bëgg a laaj dañ la ko mën a tontu incha allahu taala fekk fan yu new itam ku ñëw ca université ba université Ahmadul Khadim da nga fa fekk mbooloo moo xam ne dañ la loo bëgg laaj dañ la ko mën a wax. day liggéey bu yaatu boo xam ne nag am nañ fukki commission ak juróom yoo xam ne benn bokk ci moroomam lu muy liggéey loolu moo tax liggéey bi yaatu. xëy na leeral lépp dana jafe waaye commission bu ci nekk mën nañu wax ne lam doon def moom alhamdulilahi rabbil alamin noppi na ko li nga xam ne mooy wàllu tabax yi itam nga xam ne sëriñ bi moo ko doon defal boppam moom itam la ñu am fi mu nekk nii doy na sëkk sëkk ab tàmbali ndax bari na lool université yu nekk ci àdduna bi ñu am tur lool ñu di leen dégg waaye lii fi am ci ay ay bâtiment amuñu ko ndax noonu itam commission euh, pédagogique bi yaatal na ab gëstoom demal na boppam ci université yu bari gis leen waaye nag léegi tey léegi ak jamono fi mu toll kumpa bareetul gëstu nañ ba lu baree bari xam nañ ko ci université yi ne ci àdduna ne yéen ca gën a naw yi ci ëpp xam nañ lañu nañ seen programme xam nañ na muy doxe xam nañ itam la nga xam ne moo fa nekk ba tax na xam nañ ne wàccaay wi ñu waaj euh, daaree Cheikhul Khadim ji alhamdulilah rabbil alamin ñi ci nekkoon nit xam ne sëriñ bi leen gàttandoog tawfiqam waaye bañ ko tàmbalee léegi ak liggéey bi ni mu toll bu doon ni àddina baaxoo rek ak ni liggéeyub doomu aadama baaxoo doxe kon duñ jegeegun sax a yegg si fii nu toll waaye sëriñ bi nag bi tayi wal jazb bi la wax loolu dafa feeñ ci liggéeyam bi lool lool lool soxla rek sunu borom daf ko koy daf ko koy daf ko koy daf ko koy dal di indil loola moom feeñ na ci mënees na ko ci làmb daj ko bu baax a baax ci wàll yëpp kon ñuy wax rek ne lii daal mooy liggéey bi mode de financement bi itam taalibe Sëñ Tuubaa yee ko financé niñ ko baaxoo defee tàmbale ci mboolem rek liggéey boo fi mas a dégg boo xam ne ñëw na ci yoon wi tàmbale ci jumaay njaareem di yegg si ba ci liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha bi lépp loo xam ne rek murid yi mas nañ koo def ñoo ko defal seen bopp bii nag da cee gën a yémeeti ndax sëriñ bi bi mu wootee dafa wax ne léegi liggéeyub sëriñ Tuubaa la nekk ci ñëpp nag wuy si ko ñi ngi xam ne yàlla daf leen a euh, dogal ñuy jëngutu ci wàllu xam-xam kenn xamut nu mu toll yor nañ euh, limu ay doomu aadama ba list boo xam ne <coughs> bu ñu waxoon ñu ci nekk noonu sax daf noo yéem ak fu ne ci àddina bi nag tàmbali ci biir Sénégal fépp rek waaye ba ci biti sous région bi ba ci bitim réew ci mboolem continent yi université bu sa xel dem rek boo jàpp rek mbooloo mu dul jeex moo xam ne taalibe Sëñ Tuubaa lañ yoo xam ne ñoo fa nekk jokkul seen bopp wax ne dañoo bëgg a ànd liggéey bi kenn ku nekk ak ca la nga xam ne na lay yëngatu waaye taalibe yi nag ak kilifa yi kenn ku ci ne sa kem kàttan def nga ko ñii dajale nañ dañu am ànd dem ca Cheikh Mouhamadul Mountakha joxal ko ko seen bopp ñii dajale nañ am ca daayira ya ca koñ ya wala ca quartier ba wala ci dëkk ya tënku dem yetal ko sëriñ bi seen seen bopp. am na ñoo xam ne it fa leen yàlla boole muy seen bunt ci cheikhul xadim radiallahu anhu ku ci nekk sas nga sa sa sa sa sa sa njaboot ñu àndandoo seen kàttan na mu toll macha allah ñu boole lépp jox ko seenub sëriñ mu ànd ak ñoom yet ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye am na ñoo xam ne it dañoo def loolu ba noppi sasuwaat seen sasi bopp bari na ci ñoo xam ne dañoo tobbi seen sasi bopp muy liggéey yoo xam ne benn bu ci ne da nga naan bii doyoon na liggéey boo ci xool rek yàlla waaye yéem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu waaye xam ne nag sunu boroom daf koo nangul kon ñu wax ne rek liggéey bi day wéy lii nuy def itam tàmbali liggéey bi la waaye du ubbi gi maanaam du du du wooteeg ubbi dañoo bëgg tàmbali liggéey bi ci ndigalu sëriñ bi tàmbali njàngum alxuraan mi tàmbali njàngum majalis mi tàmbali kulli dirasati islamiyya loxo luxal arabiyya tàmbali njàngum kër docteur bi nekk ca waaye ñee tabaxa ngay tabax ni ma ko waxee sëriñ bi moom benn soxla bii la am moo tax lu ko waaye mas a jox na nga xam ne mi ngi ko jëmale ci liggéey bi am na ci daayira yoo xam ne sax demoon nañ ba bu ñu seen bu ñu indi seen addiyee day am ñu sa boole ne sëriñ bi lii noo la ko jox ndax xam nañ ne lu ko waay jox ci liggéey bi la koy def waaye loolu nag mooy liggéey bi te day wéy nag day wéy nag sëriñ bi na ko kon kenn ku nekk na nga laxasaayu loo defoon ba la sunu borom mayee kàttan nga def lu ko ndax sëriñ bi nag tegut kenn lu mu attanut laa yukallifu laahu nafsan illaa ma ataha laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha sëriñ bi noonu lay doxe waaye xam na ne lu jëm ci sunu borom la rek képp ku nekk rek looy joxe itam bu kenn xeeb ndax yàlla moom moom lépp waaye boo koy jox la nga mën nga koy joxe waaye bu lay fay nam toll la lay faye waaye bu kenn yéem itam ndax denc bu du yàqu la te lu ci waaye def sa boppa nga ko defal kon ñu wax ne nag li mithli hada falyamali a amilun wa fii dalika falyatanafasi al mutanafisun te ñu baax ñi kat ulaaka na fi l xayraati wa hum laha saabiqun yàlla nañu ci yàlla boole te àggale yéen yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñaan Cheikh Mahamadul Muntaxa yàgg fi ak njabootul Cheikhul Khadim gépp gépp ak mboolem taalibe yëpp yëpp ak mboolem jullit yi sunu borom def jàmm ci at Sénégal def ko ci àdduna bi te yokk fi ak dal yokk fi jàmm yokk fi xewal yokk fi ak déggoo ba mission bi nga xam ne moo tax borom bi subhaanahu wa taala indi nu ci kaw suuf nu man koo def nan ko war a defee te mooy doon kuutaayu borom bi subhaanahu wa taala ci kaw suuf waaye doon ay jaam yàlla yu koy jaamu nam bëgg ku ko ni jaamoo te rafetal jaamu ga waaye doon taalibi cheikhuna alxadim radiallahu anhu waaye doon itam ñoo xam ne dañuy dundal suuf ni mu suñu borom tàggatale suuf tàggatal nu lépp ba lépp loo xam ne doom aadama soxla na ko sunu borom jox na ko kàttan gum ko mën a jëfandikoo ci anam ga gën a baax yàlla na yàlla dimbali ñu ba loole yëpp ku ci nekk ñun ñëpp nu mën ko def nin ko war a defee ci diir bi nga xam ne moom la nu fi borom bi subhaanahu wa taala di bàyyi te ñaan ko mu nangul nu te jéggal nu te fayal nu cheikhuna al xadim radiallahu anhu fayal nu njabootam gi fayota fayal fayal nu Ehm, magam ñu mag ñu baax ñi nga xam ne moo leen defaroon te kenn ku ci nekk doon defarewaat te may nu tawféex yi ñu mën leen a xam man leen a roy teg seen tànk fañ ko tegoon ba li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne bu mu laal suuf liggéeyu Cheikhul Khadim bi bu mu laal suuf yàlla nañ suñu borom kàttanal ban ban mën ko taw ba mu ba mu gën a kawe ci kaw ba bu buñ koy jox ñeneen ñu topp suñu gannaaw ñoom itam ñu mën ko fekk ci anam goo xam ne anam nga gën lay doon ñoom it man koo yokkaat ndax sëriñ bi amul tànki gannaaw te lu mujjee ñëw mooy gën a am doole mooy gën a rafet waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu